julli ci sayyidu rasul sallallahu alayhi wa sallama ñoo ngi nuyuwaat nit ñi di ñëwaat ci yéen ak jotaayu koor mu ngeen ànd ko Hann TV jotaayu koor suñu ñaareelu jotaay alhamdulillahi rabbil alamin ñoo ngi santaat yàlla bu baax ci bu ñu suñu borom subhaanahu wa taala mayee ba ñu fekkee weer wi moo di weeru shahru ramadan su fekkee ne nit ñi tan lañ seen xel xalaat am na ña nga xam ni bokkoon nga ak ñoom woorandoo daaw te ren kat gisoo leen ci koor gi waaye tamit du seen seen ñàkk fayda de déedéet du seen dara waaye nag ndogalu suñu borom subhanahu wa taala la kon mooy ka nga xam ni yaa ngi fekkee weer wii ni ko alquranul karim waxee faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu képp koo xam ni fekkee nga weeru koor gi na ko woor woor wu sell kon ñu ngi àndaat ak yéen seen jotaay eh, jotaayu koor nekkoon nañu ci wàllu atte koor bokk na ci ya nga xamante ni nii koor masalix ya nga xam ni koor am na ko njariñ yu koor am dangay gis ne njariñ yi am na solo lool bokk na ci loo xam ni dafay tabax jëmmi doomu aadama da koy tabaxal ay jikko yu am solo bokk na ci weeru koor dafay daal jël doomu aadama bi daadi koy indil jikko yoo xam ni jikko yoo mag ñu baax ña nga xamoon ñooy salafu saalix nañu jikko woo ci weeru koor ndax dañuy wax ne fa tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha lilkiraami falaaxu nee nañ na nga nuru nurulu ak ñoom gaa yu baax ñi donte ne nekkuñu meloo ni ñoom waaye na nga nuru nurulu ak ñoom ndax kat inna tashabbuha bi saalihiina nuru nurulu ñu baax ñi loolu kat lu baax la loolu kat moom mooy texe kon nañu bàyyi xel bu baax xam na lan mooy koor am na loo xam ne dañ koy tuddee as dañu tuddee muñ koor dafay ñëw pour jël doomu aadama bi def ci moom li ñu tuddee muñ muñ nag dafa am ñetti façon muñ dafa am alsabru inda albala dafa am alsabru ala altaa dafa am alsabru an almuharramat ñetti yi yëpp dafay daje daje ci weeru koor weeru koor da lay jàngal li ñuy tuddee muñ muñ te suñu borom subhanahu wa taala dafa ne laysa lahu jazaun illa aljanna muñkat ki muñ kayam ka nga xamni ni muñkat la koku payam aljana la te xawat ñu borom subhanahu wa taala di ñu xamal ne muñ wasbiru inna allaha maa sabirin neen kat na ngeen muñ ndax suñu borom subhanahu wa taala ndimbalam mi ngi nek ak ña nga xamni ñoy muñ kat ñi kon ñu bay ci xel bu baax wéru koor dafay dikk daa di indi ci doomu aadama muñ waaye tamit muñ ba nga xam ni da ngay muñ ci mu muharramaat ci mboolem ya nga xam ni yu xaraamoon la da nga koy da muñ daal di koy bàyyi ndax kenn umpalewul xam nañ ne suñu borom subhanahu wa taala daf ñu jàngal li xadiisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne alxalaalu bayyinun walxaraamu bayyinun wa baynahuma umurun mutashaabihaat nee na lii dagan kat leer na nañ kenn ku nekk xam na ne lu dagan la waaye tamit li xaraam ñëpp xam nañ le lii kat lu xaraam la waaye neen diggante lu dagan ak lu xaraam dafa am ay lënt yu fa ne kon nag weeru koor dafay ñëw pour daal di lay tere jëf-jëf ya nga xam ni jëf yu xaraam la ndax yonent bi sax sallallahu alayhi wa sallam dafa ne man lam yada qawla zuuri wala amala wala amala bihi فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه nee na képp koo xamante ne nii su wooree koor dafa fekk ne nekk nit koo xam ni du bàyyi jëf-jëf ju bon ne képp ku dul bàyyi jëf-jëf ju bon ak wax waxu mboosoor nee na yàlla kat amul soxla ci ñàkkam bañ a lekk ak ñàkkam bañ a naan maanaam kon ñàkk lekk ga naan gi neenal na ko ndax kooku jëf bàyyil jëf yu bon ya nga xam ni koor dafa ñëwoon pour tere ko ko te ñu xam ne aaya alquran ba lu mu ñu waxoon آه، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ندخ لان لاني امتي ويرو كور مودي رجل يلا تقوى الله متخنك يلا واتشي تشنون لان خمني مودي ويرو كور ويرو كور دا فاي عندك لو خامتيني اراده موي فولونتي باسكو نيت كي ويرو كور فوغ ام فولونتي سو نيك سا بير نيك سا فريغو باغي ام اي اي اي, أي خيول mo xam ay fruits la mo xam mbollem xewal yu fa ne yow kesse nga daal di ne ci bir te ken gisula munon nga ne man kat dina ci jël lek ci waye volonté bi ngay am ba bàyyi lek bàyyi nan bàyyi mbollem ya nga xam ni daganoon na ci yow ci beccëk ñu daal di la koy tere ne la légui nak da ngay tàmbali ha kulu wa sharabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al abyad min al-khayt al aswad min al-fajr da ngay tàmbali la nga xamanteni ni moy ka fee fenkuwaayu fajar manam su fenkee ba janta jant bi di sox diggante bi lekk dootul amati lu tolloog treize heures de temps yoo xam amut lek amut nan amul jëf-jëfu mboosoor waaye tamit amut wax waxu mboosoor jëw amufa fa wax ju bon amu fa kon nag ñu xam ne ne koor dafa ñëw pour régler yu baree bari bari masaalix doomu aadama yi doomu aadama képp moo ci ne beneen bi almuraqaba modi fuglu dana dugg rek sank ci irada al muraqaba moy ngay bàyyi xel ci suñu borom subhanahu wa taala gis bim lay gis ak sam bim lay sam nga ci bàyyi xel di di fuglu sa su nek di xamne ne yàlla kat mi ngi lay gis yàlla kat motax ngay jëf-jëf ji kon koor fay ñëw pour jëfal la jëf ju mel nonu pour dal di koy def ci yow benen bi nga bàyyi ci xel bu baax benen moytu ashukr Korfinyo purunga pour nga sante suñu borom subhanahu wa taala da nga womal xamoo xif xamoo metit xamoo lenn lo xamanteni ni choona la ya nga gis ko xamni xeyna xëy na mun naa su lekke su ñame ben yon lek bala mu koy ñamaat ëlëk yow ya nga ñam so xëyee ndek daal di añ daal di reer ak sax am yo fa dugalat bala nga sax am yenen yo fa dugalat ya nga reg waye nak am ben wër wo xamanteni ni ñun ñëpp ci tollo ka nga xamni da womal ak ka nga xamante ni nii dafa ñàkk yorut ñëpp ci tolloo maanaam suñu xëyee bés suba ji suba gi ba ngoon gi kenn doo ci dootu ci lekk kenn dootu ci na naan waaw ah, képp ku wér koo xamante ni ànd nga wér lekk amatul naan amatul jaxasoog sa soxna amatul ba keroog ngay yi ci ngoon kon nag kooku tamit dalay jàngal nga xam ne kat lii kat alhamdulillah nga daal di sant yàlla nde ndekete yow yaa ngi lekk yaa ngi naan koor dafay ñëw indi la li tuddee tabe ndax weeru ku nit ñi ak loo tabe woon tabe woon ku weeru koor dañuy bëgg nga yokk ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana ajwadu nnaas wa kaana ajwadu maa yakunu fi ramadan yonent bi moo gënoon tabe ñëpp daa doon maye di maye ba dañu dañu doon wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni muy mayee daa mel ni ngelaw ngoo xam ni daa ñëw di ëpp day joxe rek day joxe rek waaye nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci weeru koor daan na maye lool waaye weeru koor da ko doon nag double day maye ci weeru koor maye gu ëpp goo xam ni daanu ko maye sax ci lu dul weeru koor kon dañuy sopp ci doomu aadama bi nay maye ci weeru koor ñu xam ni weeru koor weeru barkel la weeru yërmande la waa ji waxoon jaa alsiyaamu fa jaa alxayru ajmauhu tartiilu dikrin wa tasbixun wa taxmiidu fannafsu tadabu fi qawlin wa fi amalin siyaamu nahaari وفي الليل التراويح واجنين جاء الصيام كوردنيون فجاء الخير أجمعه مبولم يو نيونا كون داغي خامني كور لبم يو لا موني ترتيل ذكر داغي غيس نيت ني داغي جانغ القران الكريم تي ويرو كور وتسبيح كو غيس مغي سبال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فوتوك سلام من دي تي توي mu ne wa tahmidun foo fekk nit ki mi ngi toog saa yu sa yëngoo daal di wax alhamdulillahi rabbil alamin tartilu dhikrin wa tasbihun wa tahmidu nee na fan nafsu tadabu fi qawlin wa fi amalin nee na bakkanu doomu aadama ci weeru koor day dem ba aadawoo day dem ba miin jëf-jëf ju baax ak wax wax ju baax siyaamu nahaari وفي الليل تراويح نينا تاميت داغي غيس ني ويرو كور بيتيك بي داني دادي وور غودي غيغا غيس نك نيت ني ني دي جانغ القران دي تراويح ني دي تد با خاجو غودي دادي جوك دي جيل اي ركعه دي جولي ديكو سانتي سوني بروم سبحانه وتعالى يالا دي لن ديفرال خيوول تي يويغا خامتيني نيونكاي سانتي يالا كون ني باي تي خيل بو باخ كور دال نيولا كورو القران لا كور نيونا عندك دق اك اي خيول شهر رمضان الذي انزل فيه القران نتي باي خيل دي تي جانغال القران لو موكال دونت فاتحه nga koy répéter ce bir lamin ان شاء الله ربي دينا نيو تي بوين يوي ييب تي وقتان يي دي نيو دانا غنا ياتال كي دي ني تامبالي ريك واي ان شاء الله دانا غنا ياتال بوين يي خيو تي جامانو دي نين كو نيو اندالي اك كور ليم كوي سافارا دينا تي نيو ان شاء الله ربي خمنا ني اندك Hann TV di topp waxtaan yi incha allah jiitu ndogu incha allah rabbi ñu jox leen rendez-vous incha allah ba ëllëg ñu jëlaat beneen incha allah tomb asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa